Njaay Gaye laa tudd déedéet man aw ma si malaat aw ma si benn bébé bu dem waaye Tiwaawoon laa dëkk ñu fanaanoo naqar yeewoo ko wax dëgg yàlla ñun suñu naqar ci hôpital bi la ñuy wax ndax bu ci suñu malade nekkee ci biir hôpital bu ñu ñëwee pour bëgg a dugg seet malade bi dañuy am problème mu gis ko ñu ñuy sonal gardien du ñu sonal ci biti di ñu ñàkkee kersa mënuñu fexe ba gis suñu malaat wala ñu dugg ci hôpital bi ñu toppatoo ñu toppatoo bi war ñun hôpital Tiwaawoon bi sonn nañ ci torop waaw sama mu ñëw ñu ne ko amoo place ñu ni nañ dem Thiès ñu ni Thiès amul place bi ñu koy indi ci yoon mi la dog ñëwaat fii waaw bi ñu ñëwaat bi ci buntu hôpital bi ci la gaañu bu ñu ñëwee daal bu ñu ñëwee pour am malaat dañ naan benn nit mooy dugg waaw benn nit mooy dugg waaw dañ nangu kenn dugg beneen nit bi bu génnee sax yow ko war a toog ci malade bi yow keneen ka dañ naan la doo dugg déedéet malade lu mu bon bon bu fekkee ni sécurité la lu mu bon bon war na mën a ànd ak ñaari wala ñett bu kii génnee kii toog fa waaw ndax yow bu fekkee ni benn nit la ñu amee la ñu dugal mu yor malade bi yow mën ngaa génn di jënd dara boo ñëwee kan mooy toppatoo sa malade mën ngaa génn dikk fekk sa malade am na nga xamante ni bii defe na wala mu gaañu sa ginnaaw ñun daal ci buntu bi lañ am problème ah xanaa ñu ni ñàkkee kersa médecin di dañuy ñàkkee kersa wax bi daal neexul ñoom seen wax moom neexul ci benn côté waaw maanaam si wàllu accueil bi waaw wàllu accueil bi moom neexul benn côté waaw métti trop métti la ñu fanaane moom la ñu yeewoo ndax ku am sa doom ñaan nga yàlla indi ko fii génnee ko ci jàmm ànd ak moom ñibbi métti na trop ñu ngi koy métti lu ba fu métti lu yem yëf ñaaw na trop sax naqari noonu trop waaw fii lanu fanaan daanaka bi ñu xëyee bi ñu ñëwee dañoo fajarwaat ñëw lekk defuñu ko naan defuñu ko ba ñu xëyee dañoo tëj suñu kër yi ñëw di ko métti déedéet man aw fi malaat wax dëgg yàlla aw ma fi malaat xanaa bokku tiwaawan ak doon jaay doon yaay di yëg métit waaw yaay dafa dafa dafa metti nekk yaay dafa metti njureel dafa metti nga jur sa doom teg ko fii dañ am yaakaar pour mu génn nga koy fawee ñu xëy ni la dee na ci lakk dafa metti man naa ministre bi yor wàllu wér gu yaram bi su ma amoon message moo koy lancé lenn la mu gën ñoo toppatool hôpital bii tegal ñu fi sécurité bu doy waaw itam yi personnel bi nga xam ne moo nekk ci biir ñu jox cër malade ñu jox cër malade di leen toppatoo man lola lol la amoon ci luma koy ñaan mom ministre bu bu ñewé avant accord lañ fi am malade bo xam ne xelam neexul ñu ñi jaabantelo suñu ay mbokk ñepp wax liñu man ak luñu mënul yépp yaay dégg presque 300000 ñak nañ ko fi ba tay taxul ñu faj di ñu jaabantelo guddi ak bo fi ak bu baax sa doko am yalla mo tax may wax. hôpital bi li fi nekk yépp ku togon diko wax du jeex la ngeen si waron xam dara ngeen dugg waawon yalla mo tax may wax ku leen fi seede rafa da fekk nga am fi mbokk mais tay ji ku fi dund lu nekk man li fi dund sama malaata nga ne keur ga bo leen ñewon tay ma won len ki la ta xelam neexul fibrome la amé ñaata wër ñu ñuy dawlo du dawlo ba duñ mujj dañ ko génne fan yee passé lañ ko génne ñew nañ ba ci directeur bi limay wax xam nako ko dem nañ aussi tim ba ci préfet préfet man limay wax xam nako ko dem naa maag moom ak sama borom keur ba ci préfet préfet ci bofo mo mo ñu indi fi daan ni ah yeen kat xara mo woote directeur bi mi nga tuddu madame badian limay wax man yalla tax may wax ba ñëwee woote ñu ne indi len ñu opéré ko ban taxu ñu opéré ko ñoo duggal génne ba sama yaay mujj fégal ba son daal di toog ñëwatul am na yenn yoo xam dafa rafetul may ñaan nag Macky Sall mu xoolaat nguuram xoolaat réew mi xoolaat li fiy xew askan yu sonn nañ ndax tey jii li nga mën a dajale pour jënd garab tey ëllëg sa moroom munu ko ñun ñi tey ñu ngi ni jeexal nañ dañoo mujj toog yóbbu suñu malaat loolu set pas normal ah dëkk bi dañoo war a wax d'accord yow mbir mi nga xamante ni moom moo fi am démb yow euh, déjà da nga bëgg da nga njort ni négligence euh, moo ci nekk. non négligence am na ci parce que kenn ku ci nekk am nga loo fi dund yàlla moo tax ñuy wax kenn ku ci ne am nga loo fi dund muy man di sama moroom bala ngeen waroon a xam tey média yi ngeen génn xool dëkk bi laaj la ñoom luñ dund ci hôpital bi li ma metti nag mooy liñ tuddee dabaax maali hôpital bi te royuñu ko si dara man loolu daf ma metti yàlla rek moo tax may daf ma metti parce que dabaax ku ko xooloon ku ko xamoon tey jii maanaam ci yërmandeem ci baxam ci tabem ñoom waro nañu am neneen ñu doxale lu ni gis nga da nga ñëw di lacc sa sa sa malade ñi ci buntu bi yalla mo tax may wax barke Serigne Babacar si yalla mo tax may wax sama yaay ñew na fi loxom lañ gajj te bo la nga cior am lu la leer ñu ñu dem tank tànk mbagam mbagam won la ñi naka carrément do dugg garder ñu tek fan ñu tek parce que dafa metti dafa metti tay ji ko am lu la neex di nga fi ñew fi ci hôpital bi jaamu ah nga bàyyi sa kër bàyyi sa lal nu mu neexee ngay ne di jaabante garde yi duñ la faale boo ñu ñëwal doo dugg te nga am fi malaat loolu fan lañ ko teg pourquoi ah. lii bu dalee ci Sénégal dalati ci waa Tivaouane metti na ndax euh, gis nañ ci fee yi mel nii bare baree baree bare barki démb rek ñu ngi dund trois jours yoo xam te dafa metti ci meurtre yi am te lii ñëwati dalati suñ kaw kon dañuy am metti ci xol metti ci xol daal lañ am képp kuy nit képp kuy doomu aadama wër rawatina ngay wëy jur am nga tey loolu la bi nga ko yëgee biig ak bi nga yeewoo yëg ko am nga lu la daal. ñu gis ne lii nii jàpp defee dina cent waaw li ma gis mooy présence bi rek gars yi nañ am taxawaay am pastef bu wér ci li ñuy def ndax mbir moom boo ciy yëngu tamit te amoo ci pastef dafay mel ni moog zéro ñooyam nañ taxawaay bi daal taxawaay bi surtout taxawaay bi li ci gën a mën a insister moo gën vigilant yi. ñi yor seen téléphone di teg seen téléphone di nekk ci di di di nekk ci nit ñi fii tamit ku fi ñëw boo sañoon booy génn da ngay génn waale ak wér yaram doo fi ñëw tamit ñu lay négliger amul benn njariñ te ñoom dañ bi ñuy bi ñuy dugg ci lii dañoo waat ni malade bu fi indi dinañ la taxaw nañ la war a taxawoo kon ñoom nañ respecté li ñu wax. tey état mooy ñu yokkaat sécurité bi rek yokkaat vigilant bi yokkaat tamit euh, taxawaay bi ak pas-pas bi man ndaa loolu laa am ci li may wax. waaye mbir mi métti na trop waaye nag waa waa kees waa hôpital national maa ngi leen gërëm di leen sant bu baax a baax ndax man indi naa fa ab wasin ma am ñaari malade ñaari doom ci kaw lañu ma boole samay doom ma yor sama meew di toppatoo ñu jox ma sergal bépp noo ma leen di defaree. xale yooyu tey ñu ngi am te ñaari at wax dëgg yàlla ñoom du ñu la wàcce ñu ne la léegi do ànd ak sa doom doom yi dañuy yëkkati doom yi ñu jox la place ñu ne la toog fii ak sa doom yaa leen di toppatoo sama bag la ñu ma tegal maa ngi leen toppatoo bàyyal suñu borom ba ma am fukki fan ak juróom seen ndey wér ma ànd ak ñoom génn ak salaam waa kees maa ngi leen sant bu baax ci barke ma léegi jafe-jafe jafe-jafe waaw jafe-jafe yi am njàlla ko yàlla sunu borom saafar métti na nag waa jaam lañ ñaam lañ natt na ab nattu la nag jafe-jafe la yàlla sunu borom moo def jafe-jafe ji nag ñal yàlla sunu borom defal jàmm ak salaam yàlla yàlla defal leen jàmm fii fii fii leen waajur fi ñu waroon féet seen waajur njàllan yàlla sunu borom defal leen ñu aar leen fa fekk leen ci barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax ji bari na lool nag xam naa nag ku xamuti di nga wax te lépp lu waay di liggéey jàppal ni il faut nga am ca aw xas ku koy bañ doo fiite fen xam naa mënewu ma wax nag yéene naa wax kàddu gi tamit neexut maa ngi jégalu ci kàddu gu naqari gi miinu ma wax bi bet ngeen ma xëy na dina am ñoo xamante ne bu ñu fi dikkan tey comme ni ma def dañuy jàpp ni docteur yi dañoo bañ ñu dugg ak man ci la laa bokk ak damaa war a dugg du loolu mësuñu maa téye affaire bii xew fii moo tax taxumaa jugut yëguma ko damaa ñëwoon pour ma ma rojo sama tànk pour ñu bindal ma kayit bi ñu ma waxee ne ma mënut a nekk tey liggéey comprendre naa xam naa ne dëgg la. te yow personnel de santé nga si au centre de santé euh, Ngaye ngay liggéey wala si yeneen poste de santé yi. yeneen poste de santé yi la nag. poste de santé exactement si Ngaye. wax dëgg yàlla poste de santé bi Ngaye dama fi ñëw toujours di fi indi malade waaye liggéeyuma ci biir yeneen gox laa jógee di fi ñëw ñu may yor malaat di ko andi ñu di ma jàllale ay Thiès ak Dakar loolu la dëgg gi la may wax. loolu loolu xam nga mënoo fexe ba ñëpp yem ku ak nala la yàlla bindee man a bu ma yóbbu malade buntu hôpital bu ma dem wax boobu dana fa am waaye ñi yor malade dama leen naan tey leen ta dal ndax yow mi andi malaat bi soo ñëwee da ngaa war a tey neex deret dal. soo gisee ko naqar der wala mu jaay la doole wala leen nga ñaan ko ndimbal li waaye ko ndax dangaa ñëw te moom nga yaakaar yaa ko yit sa kon neexal deret ba am ci mom li nga bëgg donte la la xass ngagn la wax la lu doona ne la dama lay dakk ñaan ko dimbal ne ko ngir yalla dimbali ma man yow la am yow la yaakar ci yow la andi sama mala man loolu mooy sama xam-xam mayit li ci sama walu liggéey man lepp lu ma man ci lu ma lu ma sant maa nga ca auto war na la biir xoram ba leer waaye doom aadama ba ko yàlla sàkk wut ñëpp man da lu ma man maa ngi ko ciy daw lu ma man maa ngi ko ci daw ku nangu tamit dinaa la conseiller la neexal deret jaral sa droit buñ la téré ni le droit bi momoko dawal aw ci fenen nga ñaan dimbal ñaan njekk pour ñu jël la ba nga am la nga bëgg bu ma nekkee ci biir tamit lupp lu bi mom fi la ko diggé wax dëgg yalla diko metti métti rek mo metti lool xamné doom adama doom adama aadama ëmb juróom-ñeenti su matut dugal nañ ko fiñu ko dugal ngay xey di nampalé dem di waja dem ñun la koku dem metti na waaye dogale yàlla la yàlla mënoon na ko dundal ba mu dem ba war a toll ci dina liggéeyal yàlla jël ko wala moo bàyyi la nga muy wéradi ngay demee hôpital def fay xaalis bu dul jeex. mais yàlla yàlla bees jot nañu fagaruwaat xoolaat vraiment ah waaw jot na waaye tamit ba tey nu tey rek ta xam ni rek ñiy liggéey ay jàmbaar lañ ñu def ndànk tey rek man de jëpp ma ni wax dëgg yàlla benn benn tey tey am na ci boo xam ne nit moo ko tey ba tax yàlla andi lii. dama japp ne yalla moko bind ci aras rek bañu ñu mu bind ni ku ci nek sa dom bis bi la ko yàlla moom muy bi waaw loolu la ku dee mom yalla la ray mais aussi comme ni ma la ko yalla yàlla yàlla béy si tool xam so soo jiwee jiw faaw nga toppatoo tol bi bay ko mais bo jiwe nga ne no damay bay yalla dina ko baax waaye man man ci sama gis-gis man xama naa ñi ne ci buntu yi ak ñi ne ci biir ñi ngi ñi ngi def seen waru gar hmm. man loolu la gis waaw ñi ngi koy wax mom waye yow yow mi nek ci biir liggey nga xam sa waru gar nga def ko rek defal li nga xamante ne mooy sa warugar ci sa wàllu liggéey nga def ko ñaay wax nag naan lii laa laa yow bu leen topp bu leen déglu yow xoolal sa yàlla xool sa liggéey def li tax ñu teg la fi ndax malaat bi nga xam ne dafa dugg ci biir ñu ubbuntu mu nekk fi liggéey mooy moté ko aussi les moyens est-ce que moyens na ko jumtuwaay yeeg euh, yooyu yëpp kaaraange mat na jumtuwaay moom xam naa liy manqué du bari waaye dañ tamit dañuy ñaan rek ñu dolli nu ko ñu dolli nu jumtuwaay ba liggéey ba gën a mën a dox comme ni ma la ko waxee rek boo nekkee ci biir am yu manqué ah ñu ñaan rek ñu dolli nu ay matuwaay.